asalaamaaleykum mbokku téléspectateur wu Leral TV nuyu nañ leen joxoon nañ leen dig daje ci beneen kër ndaanaan yaakaar nañ nag bés bi yegsi na tey ndaanaan bii ñuy jàkkaarloo du koo xam ne sénégalais yi xamuñu ko sénégalais yi xam nañ ko ci jonge sénégalais yi xam nañ ko ci ay wëyam sénégalais yi xam nañ ko ci bëgg njabootam kooku mooy kan kooku mooy mamaa Fatou bi xam naa nag émission leeral jonge yàgg naa neex waaye bésum tey gi mooy doon daj dëpp voilà maman Fat Lawbe nuyu nañ la ci suñu émission leeral jonge suñu télévision leeral TV tey moo la seet si. Euh, ñu waxtaan ci jonge waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àddina wërëngal këpp maa nekk tey ci chaine bi mooy leeral TV mm-hmm. nga xam ne ci mbattal la taxaw. Mm-hmm. puus mu dem puusul mu dem bëgg ci waxtaan ak waa diaspora sénégalais yi dama naan àddina wërëngal këpp sax. ndax fàttaloo ba fi mu nekk rek àdduna bi yëpp ñoo koy seetaan di kontaan ci yow bu baax a baax a baax pour la balde di la wax ne bismillah ma jërëjëf maman Fatou Laobé euh, kontaan nañ ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ko tey fii ci suñu émission leeral jonge équipe bu leeral jonge yëpp kontaan nañu ndax accueil bi rek nee nañ moom cin bu naree neex bu baxee rek dafay xeeñ ñun bañ nee tàpp ci escalier yi la xam ne tey dugg nañu nag ci këru géwél tey nag dugg nañ nag ci këru Laobé ndax nag ndax nag man li ma gis xam naa nag tey leeral jonge beneen spécial la ah. euh, maman Fatou maman faatu jigéen bu jonge dégg naa même ci xoolinam boo ko xoolee rek da ngay xam ne kii jonge na bu la rombee nan ngay xamee ni ndaw si jonge na sans pour autant nga nga nga dëkk ak moom wala nga doon jëkkëram nga xool ko rek nga xam ne kii jonge na waaw damay wax rek bisimilah rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di sant sama ñaari waajur di ñaanal xalifa généraux yi ci àddina bi yëpp yàlla may leen ndam may leen gudd fan ak wér-gi-yaram te yàggal seen taxawaay euh, jonge lañu wax mhm. leeral sa jonge mhm. defe naa nag boo ñëwee fii dangay am leeral jonge bu leer nañ ba mel ni midi mhm. waaw leeral jonge ba mu mel ni Banjul ak i ba lu bëccëgam allah jonge dafa bëri ay jonge te bokkut. maanaam jonge yi dañoo bari te bokkuñu. te bokkul xam nga ni caprice sax. Mhm. dafa bokk ci jonge. maanaam jéeg bu caprice. waaw léeg-léeg nga dégg góor ne la man. sama jabar dafa capriceuse. Mhm. ci jonge la bokk. Mhm. ay jonge moo bëri ay bunt ak ay ruqurkaan ak i place jonge nag balde balde munoo jonge te baaxuloo maanaam euh, sénégalais yi dégluwaat leen yéen dégluwaat mama mama Fatlaw bene li mu wax neena na jeeg bu siis mënul jonge waaw kay boo siisee mhm. doo mën jonge soo yaatuwul mhm. doo mhm. boo ayeful doo mën jonge te boo baaxul sa xol set wicc leer naññ ba ku ñëw nga mën koo def ci sa bopp doo mën jonge hmm. jongeen dafay ànd ak ñeent yooyu. Mhm. micro bi na tuuti. jongeen dafay ànd ak ñeent yooyu. waaw. ba ma cay topp muy juróom mooy boo civilisé wul. Mhm. doo mën jonge yooyu yëpp dafa ànd ak jonge balaa ngay mën a jonge faw nga mën a def loolu. benn war nga mën a nekk jigéen ju yaatu ju mën a togg. Mhm. mën a accueillir gan mën a jox sa gan même bu amul woon. appétit pour lekk. mu mën a am appétit pour lekk kan mooy tax mooy jigéen ju jonge ji ñëw di teg añam. lal ay nappam. teg ay vaisselle macha allah. teg say bool rafet. fomp ba mu melax. waaw accueillir say gan. di sourire ubbi sa kanam. di kaf di ree. di ree. fekk nag booba yu xeeñ yi ma nga ca wet ga yu xeeñ xeetu baax baax yi mi ngoog mhm. waaw jar na ba pare jar na ba pare waaw seex <laughs> jar na ba pare nga jël sa waaw sarxataan xam nga li sarxataan la sarxataan menn mi macha allah. Mm. moo nekk nii mhm. def ko ci sa xeetu jonge mhm. muy saxaar nii di jolli xet ga xeeñ lu neex kër ga xeeñ lu neex ba ko ñëw ne ah macha allah kër gi moom baa jàmm la kër gi xeeñ na lu neex bi mm-hmm. ah fekkati jeeg ba mu togg kuddu du ku du ci loxoom mm-hmm. mu mën a togg ma maman Fatma dégg naa ko man togg nga nag ah, waaw waaw mm-hmm. togg rek laay ci sama loxo mille neuf cent ba xër ñett laa togg ñetteel ba nag nga war a taaj say ndab def say bagaas waaw micro bi na la jege ñetteel ba nag nga mën a taaj say ndab def say bagage waaw waaye nag accueillir say gan ba kenn du mer. Mm-hmm. kaf ak ñoom réew ak ñoom wan leen kanam gu yaatu lu mu laaj nga jox ko ko mm-hmm. ba kenn di mer. Mm-hmm. ñu mën a lekk ba suur mën a naan ba suur. xam nga li ma la wax. te fekk sax bi ñuy ñëw ñoom xiifuñu woon. waaw amuñu woon sax envie lekk. waaye niñ ko defee mooy tax mu ñu am envie lekk. loolu mooy premièrement jonge mooy premièrement jonge waaw kay waaw kay beneen ba mooy mhm. nga nekk ak sa jëkkër ci biir kër gi waaw doo xooñ doo xeeñ lu neex mhm. doo cuuraay mhm. doo woo doo sëru nàlli doo def parfum mu baax sa néeg du rafet te góor dañ koy jommal waaw jigéen dëgg bu jonge day jommal góor ndax bés bu nekk melukaan Mhm. nu muy def maman Fatou. laaj ma ku ko wax. Hmm. laaj ma nee ma ku ko wax. kan moo ko wax maanaam jigéen day jommal góor loolu ku ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni. Mhm. góor ñi takk leen ci jigéen ñi. Hmm. waaye kenn ku nekk. Hmm. na takk ki mu gën a nopp. kenn ku nekk na takk ku koy jommal. Mhm. góor gu ci nekk. takkal ki doon sa seytaane. ngir sëy ba neex. waaw. xam nga ay nit bu ñu bëggantee ba ku nekk yaakaar ni yaa gën a bëgg sa moroom sa morom. waaw lu ci tegu rek day neex. Hmm. lu ci tegu rek day neex ba mel ni lem gunu segg. waaw booleeg meew. Hmm. toppatoo sa jëkkër. Hmm. ci muy sol lu set. ci jonge la bokk. ci leen nga dugg sa amuwaalu jëkkër. dem ca marché ba. changel ko ay su set. waaw. jënd ay caleçon yu fet mm-hmm. ndax jamono ji chaque jour ak la cay xaw. waaw bés bu ne bu la neexee sax ñu def ci sa tur. defal ko ca mu ngi noonu. Mm-hmm. jaru nga naan ko jënd naa ko def ko ci batan bi rek mu doon surprise. waaw yaa ngi may déglu. Mm-hmm. jënd sa ay parfum de classe. dugal ko ci place am ah. jëndal ko ay bain de bouche. jëndal ko ay lépp dugal ci place am. ndax loolu yaay dem di ko vérifier yow miy soxna si. waaw di defar ba mu baax. góor. xam na ku baax ci moom. Mhm. te góor ku xam ku baax ci moom rek. Mhm. mu fonk la. mu fonk la góor ak xale la yam. Mhm. boo ko naxee. mu ñëw xoola kon loolu lépp ci jàngale ci jàngale ko. waaw maman euh, dañuy ñëwaat ci beneen question kon tey nag ci maman Fatou Laobé la ñu ñëw. tey amul dara loo xam ne dafay ëmp jigéen ñi ci côté jonge maman faatu est-ce que jigéen war na yor benn position wu tëdd rek. ak ah, déedéet. loolu moom xam naa dama ci xuus bu baax sax. waaw. <laughs> ndax wax bi egg moom mhm. dafa ko mën waaw waaye jigéen daal uh-huh. war naa bari ay feem mm. rawatina bu nekkee ak allaajeem mm-hmm. waaw maanaam daal euh, jigéen war ngaa bari ay façon yi tëddin benn tëddin daal rek maanaam jeeg moomu ko war naa bëri feem daal. war naa bëri feem ci boppam day bëri feem. waaw mais tamit di génnee say bagage di ko laaj tànnal comme maman Fatou yi nga yor noonu. waaw euh, di di laaj sa borom kër na tànn na xool tey ba ko gënal est-ce que tamit gënut ci jonge gi. xam nga sànq dama ni la. waaw. jigéen day jonge. waaw. day jommal jëkkëram. waaw. mateel la bi. mais mën nga def nii. Mm-hmm. xam nga ñu am suñu bula bik waaw am suñu feru ancien gloire bu ndaw bi. ah dafa am ancien gloire waaw bu ndaw baa ngi noonu kooku mooy toj bu ndaw bi am na toj bu mag. Mm-hmm. léegi tey. Mm. nga ñëw def nii say fer. ñëw na nii. waaw waaw. li moom lan la nga ne ko damaa bëgg nga tànn tey. ban fer lay takk. waaw. mooy la chérie bu la bi na de. Mm. nga ne ko man ma yaakaaroon ni bu weex bee dàq. waaw jeu bii lumière macha allah. waaw. <laughs> mu ne noonu man bula bi neex na ma. Ah. nga daal di tànn bula bi nii. waaw. mu di ko xool nii. Mhm. xolam day neex de. xolam day neex. day sedd. waaw fekk na ci sangu. daaw sangu ba set nag. Mhm. xeeñ lu neex. Mhm. xooj sa siwa cepp. daal di koy lenqare sa yaram. am say parfum yu ndaw yu mel ni saafara bii macha allah. Mm. kii. waaw moom laay wax moo di ndamal jekk. maanaam mystique. eh kii mooy saafara bu faataloo bi ñamal ma ko tuuti rek def ko sama ko. waaw waaw baax na nu mu ñëwee rek baax na voilà. Mm, maman fii toj na. kii. dana ko mélanger parfum yu baree bëri bari def ci ceeb. Ah. ci biir ci biir. war nga koo xeeñ sa néeg bu duggee rek.

ak premier âge. Mm-hmm. ak ancien gloire. ancien déggoo ma de. <laughs> waaw ak ancien gloire. ancien gloire. ancien gloire yi nag. waaw moom mooy feru cat yi. Ah. da nga koy mocc macha allah. waaw day am per gis nga petaaw yi mu am juróom-ñaari petaaw la am. benn bu ci nekk. Mm-hmm. kii boo ko takkee. waaw lu la waay wax. Mm-hmm. mu dellu ci moom. kii boo ko takkee. cat du la topp. rawatina nag. koo xam ne dangaa amul jëkkër te bëgg am jëkkër lu yàgg. Ah, li may wax. Mhm. am na ñu ko dégg fii ci réew mi dégg nañ ma xam nañ ma. xam nañ li may wax. Mm. ndax jaar naa fa ak ñoom. waaw loolu dafa am solo. kon maanaam bu ñu bëggee dégg bu baax li nga wax. kon fer amaale na mystique ci biir. waaw kii dañ koy mocc. Mm. am na bu di jëm danga fekk mu jeex. dañ koy mocc. Mm-hmm. ki mooy fer mocc. fer bëri na te bokkul. fer bari na ci yooyu nag mm-hmm. ngay war a am mm-hmm. secret yooyu yu ca koro boole yooyu mm-hmm. fii lay am ci law ba gi bote ah. macha allah jigéen ñi fi ñëw waaw xam nañu fii mooy fan xam nañ fii mooy kër fii mooy salon d'honneur bi waaw maman Fatou Laobé euh, dañuy ñëwaat ba tey ci beneen question xam nga ñun bu ñu ñëwee fii sa kër rek du ñu mos a doyal maman Fatou am na jigéen ñoo xam ne xaw ma dañoo sàggan ci seen bopp xaw ma lan la boo bokkee ak ñoom bus sax Euh, da ngay bëgg a wàcc biis bi. Mhm. nga nga dem maanaam jigéen ji nga xam ne dafa am xet dafay dégager xet boo xam ne du neex euh, te yaakaar naa ne nag jigéen moom fu mu war a toll rek dafa war bu la rombee rek nga xam ne jigéen romb na ma. waaw loolu laa la sànq may la. Mhm. dafa am nag jigéen ñu civilisé. Mhm. dafa am nag jigéen ñu salte. ah maanaam jigéen bu salte. jigéen ju salte boo ko gisee danga koy xam boo jàkkaarloog moom da nga koy xam. ndax jigéen ju salte. day set setu kaani xeeñ xaw kay jekk ci kaw maquillage bu mën a rouge mën a malastiku mën a def yëfam waaw waaye boo lambee ay poqataanam ak ay suufu weenam wala nga jënd ak moom mm. sa àddina day tukki mm. kooku jigéen xajamul waaw dañu ne jigéen day xajam te du mm. doon suuf xajam mooy di sangu heure di socc sa bëñ ba mu set mm-hmm. di def say pâte dentifrice ba mu set mm-hmm. say bain de respecté sa digganteeg sa borom kër. Mhm. te boo ko fi deful góor ñi dañ lay romb de. romb la bala fi. romb la ne la chéri ma ñëw. waaw. benn 30 minutes wala benn 40 minutes seet nañ keneen ku joŋi ku leen di tëbal ba ca kaw. Mhm. di leen tël tël ku leen di nemmi nemmi di leen tël góos di leen tël waaw ku leen di saxal ñuy lekk. Mhm. ku leen di wax chéri. ku leen di wax chocolat vanille. di leen wax coco. waaw ah. ku leen di wax honey. waaw waaye yow bu sa jëkkër ñëwee salaamaaleykum rek nga ne ko facture courant baa ngi noonu. waaw. du éducation du ah, xanaa boo xëyee liggéey. Mhm. bu ngoonee bu sa jëkkër wàccee nga mën a teg dara nag. Mhm. waaye batale ko muy naan mi ci kër gi. kooku liggéey ba wàcc bëgg a toppatoo sa jëkkër. Mhm. nga bëgg a wàcc te bëgg koo bataleeg moom kooku du xaddi. Ah, kay kooku du sonn. du dem uti beneen jabar. lii rek moo fi nekk. ko fonk sa jëkkër. doon sa buuru jëkkër. waaw ak yàlla ku fonkul sa jëkkër mhm. góor ñi dañoo sab de ndax xam nañ li xew léegi mhm. te xale yi tuuti yi tuuti yi sax da dañoo jonge waaw nga xale 17 ans yi ngay gis mhm. xale 18 ans yi ngay gis waaw xale 19 ans yi ngay gis ñu ci réew mi di cekk-cekk yor saak sol t-shirt def seen o sa ñoo jonge waaw mama xale yi dañ fi ñoo naan ma mama jaay ma pañe de waaw xale bu ndaw ke doom yoo loolu day pañe waaw mun a ah yaa booy. yaa booy dama am sama dama am sama sama sama demi paa nag. waaw xam nga yaay booy nag paa yi ñoo ko yor. Hmm. wala dama am sama waajoo xam ne yi moo koy daanal. waaw dafa bëgg ay ay ay ay ay fer dafa bëgg ay pañe. waaw te yooyu dafa am solo dafa am solo jigéen ñi di ko xool di ci concentré wu li fi nekkoon démb ba tey. Mhm. moo fi nekk de. li fi nekkoon maanaam démb ba tey mama Fat Lawbe mm-hmm. nee na moo fi ne euh, maanaam mbëggeel soppeekuwul benn yoon euh, xanaa kay ñun ñooy créer ay feem yu bees yi di indi yeneen yu bees di bees ndax góor moom benn feem rek euh, yoru ko il faut ngay soppeeku bés bu ne nga andil ko jommeel bu bees yaakaar naa ni man noonu lay doxee sax ma mama faatu moo tax sama jàllo jéeri mais macha allah vingt heures mu ngi ca kër ga waaw waaw lay def ndax man ay tata yor man waaw xam nga dafa yàgg ci mbaax. Mm. dañu ne pour la ñaagee jalu ñaantoo fadoo tawee rek moo ne danda. wallaay. pour la yii ma yow ma pour la àndaa ko ngondaa. Mm-hmm. ñu ne njaw di mu gitu jëy gàllaa ji jéegoom. Mm-hmm. soxowaani du ngul bi nii ma. Mm-hmm. pël dafa doon baax. pël dafa xam cosaan xoolal li nga sol tey. waaw barke Serigne Bamba moo ma gënal li ma sol. <laughs> xam nga lu génn fi nga war a génn. waaw sa caq. <laughs> macha allah. Hmm, càkku law be. waaw mi ngi noonu. yéen koy nas de. waaw mi ngi noonu. waaw xoolal say jaaro. Mhm. xoolal li nga mu sóoroo. waaw xoolal fi nga génn ci mbaxa. <laughs> macha allah pël nii lay mel. pël nii lay mel. <laughs> kontaan nañu kontaan naa eh, kontaan naa kontaan naa maman Fatou Laobé bu baax. Euh, tey ci dalal bi ñu dalal fii ci suñu télévision leeral TV. Uh-huh. émission leeral sa jonge waa pël bi nag gën naa génn. mi ngi nii pël bi nag gën naa génn gis ngeen ni ma mama faat di def rek nga dindiwaat ñaari boole ko ak montre waaw mu gën a ànd rek. day day rafet macha allah. waaw te ba pare nag caq yi nag mystique la. mu ngi nii waaw kii mooy peme. peme dafa am original ak bu original kii mooy peme original. ki mhm. nga benn peme bii waaw. boo ko boolee benn pétaaw bii. Mhm. nga takk ko ci tànk. waaw am na lu mu ciy boole. waaw lépp loo xam ne jaarul yoon bu la daal. Mhm. secret dafa nekk ci aada. waaw ak waaw te Sénégal dañu bëgg a fàtte aada cosaan. de du yoon. waaw du yoon. waaw ma faatu ñun euh, gis nañ fi ne. dafa am loo xam ne aussi mu ngi ci biir réew mi ci biir senegal waaw euh, te mu bëgg a jommal sénégalais yi. Mhm. maanaam jigéen ñi. xam naa dañoo wóolootul seen bopp wala lan la parce que jigéen ñaa ngi utiliser ay safal safal mel mi nga xam ne mu ngi toj dëkk bi waaw safal gi mu ngi toj dëkk bi mu ngi cancer loo jigéen ñi euh, mu ngi indi ay maux de ventre mhm. façon mettit bu ne boo xam ne tey boo xalaatul rek jigéen ñaa ngi ko ah ak ay xeeñ waa kay euh, safal bi day xasawal jigéen <laughs> waaw waaw jigéen dangay naturel Ah. da ngay naturel. Mhm. sangu ba set ak li ma la wax. Mhm. jël sa benn siwo def ko sa salle de bain jënd lu tolloog cent francs ceeb. Mhm. xool ci siwo bi bàyyi ko 2 jours ndax ceeb bi buy yàgg day nëb. dootul xëy gu neex. ceeb fu mu amee quatre heures. nga jënd sa sa sa tey sa parfum bu mel nii. xew ci jamono. waaw picc picceel ko sa ceeb ba ba sangu ba set daal di koy lenkale sa yaram. yaa ngi dégg. màpp sa yaram sa xet neex. waaw nga am say déodorant am sa yu neex. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. yow maanaam boobu sa jëkkër gisee rek. Mm-hmm. bu la nee jàq toog ak yow rek li muy sentir ci yow rek. day xam ne jigéen piir nga. waaw waaye yàqu mënta paase doon jigéen. yàlla sàkk la. ak la mu la mooñaale. ak secret bi yàlla def ci yow. ak ndam li la yàlla may yow jigéen. ak suñu borom si boppam. ni mu la bindee. ak xéewal yi mu def ci yow ngay dem réew beneen réew bu defar xaw ma lu mu doon mm-hmm. ñëw nga naan secret jigéen jigéen kay boo demee ba amatoo sa secret bopp mm-hmm. ngay dem ñu lay jaay secret nga di ko utiliser kon boo yeboo tëddi nelaw mm-hmm. te xam ne yow motoo li nga doon ku ci bàyyiwul secret jigéen nag di nga mm. moo koy indi dëgg kanam jigéen bu kanamam xeeñ wala mu am xet yooyu yëpp da koy indi. Hmm. ndax boo ko utiliser tey utiliser ko suba utiliser ko ginnaaw suba. Uh-huh. bu ginnaawaat suba mu indi la feebar. waaw infecté. Uh-huh. da koy indi ay jigéen lañu dañuy waxante dëgg. waaw dañuy ñaax xale yi. Uh-huh. ñaax xale yi wax leen li nga xam ne loolu mooy dëgg. ëllëg si biir yi ñu mën a xam ne lii dégg nañ ko. parce que xale yu bari ñu ngi nii fii def lu leen neex seen yaay yi duñu communiquer ak ñoom. Mhm. te il faut mag ñi ñun. ñu communiqué ak xale yu ndaw yi di leen wax naka la ak nan la ak fan la ñuy jaar. est-ce que aussi gone gu ne kepp toog ci pooju ndayam. ba xaar hmm? euh, li ko fa war a fekk fekku ko fa. soxlatina di utiliser ay safalak yi kenn xamul. déedéet loolu nag mooy wax bi mooy base bi. Mhm. xale dafa war a gàtt tànk waaye léegi toj dëkk bi dëkk bi. toj na de hmm. hmm. li ma la xamal mooy. jéeg bu ndaw bu ci yor sa ji aas mm-hmm. macha allah muy coof mm-hmm. delix nga bàyyi ko sàggane ko di ko xool mm-hmm. xale bu ndaw ne ko ñoom pet teg ko ci mat laa bu nooy di ko berndeel di ko miswil di ko taalal cuuraay di ko takkal fer ndax góor ñi dañoo bëgg lu baax waaw kon jigéen ñi faaw ngeen di def lu baax téye seen i jëkkër ci biir kër gi sekere yi téye ci biir kër gi ci jëkkër yi ci biir kër yi fii lañ ko fekkoon Sénégal waaw sunu aada la suñu cosaan la ba léegi mi ngi fi dara changé wul dara changé wul mhm. def ba mu baax tax ba mu waaw euh, maman Fatou waaw gis nañu ay savon mm-hmm. yaa ngi yor ay savon ay xeetu savon yu baax ndax maman faatu moom dernier moment yi moom dañoo gis ne moom sa teint macha allah euh, sa teint moom baax na car macha allah waaw euh, loxo yi set na mm-hmm. te xam nga jigéenu Sénégal moom léeg-léeg mm-hmm. da ngay gis ku diwu ba loxo yi moom moom moom du neex a xool te yaakaar naa ni loxo sax buy raay sa jëkkër mm. loxo boobu dafa war a nooy dafa war a nooy te rafet waaw xam nga tubaab yi muus dañ ko utal ay pommade mm. mooy népp waaw ndax loxo moom warul ñagas booy raay si jëkkër mhm. mu yëg ni loxo gar mi laal na ko mi ngi koy laa raay mhm. loolu laa gëm waaaaw di raay sa jëkkër waaw man nag gis yu rose yu xam nga li la ay mberembe sa mi ngi noonu lii ay savon de luxe la savon de macha allah kii saabu bii mhm. mooy saabu lawbe gi buti ah. kii balde balde su ma dama lay jox bii. waaw umu. umu boo eggee jàmm salaam. waaw nga def ci sa ndox kii umu kenn togg ko. kenn defa ci vinaigre. waaw kenn defu ci meew. Hmm. kenn sottiwu ci lem. kenn xemewu ko kenn xemewu ko amul xeme. bu hmm. saf daftal dara. Hmm. xale bu ndaw yi nekk suñu kër sax moom la ñu sangoo. 24 savon la ñu boole fii savon de marque. yaa ngi may déglu. doo ci gis dara lu naqar ci sa teint day gën a nes nes yi. waa lii lu ko dàq. dara dàq ko nga ciy sangu. waaw sa jëkkër di ci sangu. Mhm. mu am pot bu ndaw am pot bu mag. Mhm. mu xoolal kii crème rose la. crème rose menn mi. waaw. mu xoolal sama crème rose. visage mi ngi nii. waaw xam naa de moom bu ma jekkee woon ni xale bi ñu fi ah, taf. waaw laay laa du ma jégg ñetteel. mi ngi noonu sa kanam day set wicc. waaw xale bi nag lii lay diwoo. Mm. moo tax mu mel nii. Mhm. moo tax ñu def ko ci. waaw xam nga police daa bëgg maa fekkee. waa te Sénégal dafa bëgg preuve. waaw waaw kay xale bii ci photo bii. waaw xale bi moom mooy defar diw gii te moom lay diwoo. te moom lay diwoo leer na. xale bi yaayam moom lay diwoo. xale bi yaayam waaw mais nag yaay ji nag moom macha moom. mais maman Fatou moom temps yi moom yaa ngi bomb moom. temps yi sax damaa wàññi. waaw maman Fatou boo wàññiwul woon ñun fu ñu jëm. barke borom Tuubaa fekk ngeen ma ñëwul. nii. wallaahi damaa ba damaa wàññi temps yi. Hmm. xam nga. te lawbe boote gi rek ngay diwoo. lawbe boote leneen bokkut. waaw boote boote boote boote jeex na. <laughs> maman Fatou bagage jar na. <laughs> Eh, oh. kër maman Fatou lawbe nag laa ñëw. Ah, leeral TV xanaa yaakaar naa ni nag sedd gi moom ku fi doxantu rek. sa sedd jeex na. digg bu mokk ni mbax waaw. déedéet. maa ngi nii kuy nëbbatu du ko wax. Mm-hmm. xoolal bi bu la neexee sax doo ko taal la neexee sax ko taal dangay ubbi noonu rek bàyyi waaw ubbi rek bàyyi goye bu mokk mi nii sunguf lañ ko def nëbal ko goye bu mokk mel mi sunguf lañ ko def nëbal ko ubbil waay xam nga kii kuy kuy kuy kuy kuy sakkanal parfum kuy sakkanal parfum du defar genre cuuraay yi waaw wala di jël parfum bi di ci njar ndox ak. est-ce que li ma la fi woon lépp. Mm-hmm. jigéen mën na koo def ci néegam. di ko xëyee di ko gonte boole ko nëb jëkkëram. Mm-hmm. boole togg bu neex. boole a tëdd teel a lal teel a mm-hmm. beneen jigéen. déedéet amut. amut fenn kon jigéen ñi jóg leen ci seen bopp. jamonoy sedd lañ nekk nag. jigéen ju ci ragal ndox nag doo mën a joxe. ndax jonge daa bokk ci ñeme ndox. waaw di gaaw a sangu. di gaaw a sangu ba mu nooy di taal say cuuraay. boole ko bëgg sa jëkkër. teral say goro bëgg sa rakki jëkkër mhm. say say jarbaati jëkkër mhm. di organiser sa kër ga ba mu ba mu normal ñëpp ñëw bokk. waaw lii daal laay digal jigéen yi Sénégal. incha allah maman Fatou Laobé say digal dégg nañ ko euh, kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal euh, tey suñu télévision Leral TV. Mhm. ñoo la seet si woon. Euh, xale bu ndaw bu tuuti sax boo ko nee kër Fatou Laobé laa jëm mu ne la moo ngi nee. loolu du sa buntu kër moom defoo fa micro di tere nit ñi ñu dugg. wala di xool ñi ngay jël ak ña nga dul. déedéet amut waaw maanaam entrée et sortie libre. macha allah kër maman Fatou Laobé rek la am ci artiste bu toll ni maman Fatou Laobé. te banlieue laa bëgg fii laa dëkk. waaw fii mooy sama États-Unis de Amérique lu ma am fii laa koy indi. wallaay barke yonent bi. loolu leer na ma euh, maman Fatou Laobé ñun ñoo la seet si woon kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal mhm. euh, tàggul téléspectateur u Leeral TV ñu joxaa leen dig daje ak beneen ndaanaan euh, mais nag xam naa nag ndaanaan tey seet si nañ ko waaw waaw seet nañ ndaanaan dëgg la maman Fatou nag il faut nag nga won ñu nag Euh, say projet parce que sànq bi ñuy dugg si am na benn son bu riir boo xam ne sama caméraman bi moom xaw na fee pàkkar ni ko maa la ko wax xam ne lii mooy euh, mooy single bi génn waaw sama caméraman daal daal def na fi action yoo xam ne bëggoon naa koo ne sax waaw yow looy def nii xanaa doo gan <laughs> nee na ma lii kat moom dama yegg rek mu ne cukk si nopp waaw lii single bu bees la <laughs> single bu bees bu génn mhm. macha allah bu ñu yàlla dimbalee ak yonent bi waaw balaa bis bi ñu toog nii del si rek. Mhm. di nga ko seetaan ci clip dégg ko ci rajo. dégg ko ci rajo yi lu bees tàkk luñ daj ci. waaw mais maman Fatou nag da nga da nga da nga yéex a ñëwaat ci ci kii bi. da dañ laa gëj a gis xam nga tukki bi rek. tukki bi tukki bi damay dem. waaw mais nag il faut nag tamit nga ñëwaat ci Sénégal yi parce que namoon nañ la xale yi namoon nañ la looloo tax nag ma ñëw toog. Mhm. teg bagage yi fii. waaw di ko proposé Sénégalais yi mhm. toog defaat delloowaat bu mu ca mbooy mbooy ga macha allah waaw ndax nag pour mu won leen ni Mama Fat Laobé fa mu newoon démb ak barke démb moo ngi fa ba tey Mama Fat Laobé bala ñoo jóg fii nag amal loo ñu mosal nag ci ay ay ci fàttaliku ñu do lenn daal ci say woy parce que nam namoon nañ la lool sénégalais yi namoon nañ la maanaam daal est-ce que doo man daal da ba may ba may nekk xale sam papa da daan déglu doole doole mbaawi gonga yoo ah. waaw moom bu ko tegaan ci e doole doole mbaawi gonga yoo e eh, yaayo ñi wasude taake yoo saydi doole ñaagu alla doole yoo e eh, yaayo ñi wasude taake yoo loolu nag waaw woy cosaan la de woy cosaan la waaw woy lengo mm-hmm. wuyu lengo lengo la kooku seet lañ ko daan woyal ne maanaam bu leen nëbb seet bi waaw ndax doomi ñay la waaw xam nga doomi ñay kenn du ko ñaanal rëy waaw danga koy ñaanal gudd fan te doomi ñay kenn mënu koo nëbb loolu moo taxawaloon way bi way bi sama maama ko daan way mm-hmm. maman Fatou Laobé tàggul téléspectateur wu Leral TV xanaa ma jox la sama kaddu rek waaw ma ma dox la ci fer yi tey tey lay rayati nit moo yu baan ko <laughs> bu ko gaañ ndànk nag. waaw ma def ndànk de ah. Oh, waaw. Mm-hmm. bu ko gaañ ndànk. waaw su ma demee nag may ci samay copine mu ngi noonu jox ci ay Bangoura ci këru cat yi ndax bëgg naa mu am boole ko boobu. Ah? ah kooku sa kado la ak jara yi jara yi. jara yi xale yi jigéen ñi leen takk ci jara yi. ci jara yi dafa rafet xoola jara bi. waaw xoola jara bi macha allah. dafa rafet dafa rafet ah? macha allah. waaw euh, maman Fatou. xam nga ni caq yi aussi yéen a koy defar yi waa yi dañ koy nas. waaw yii da ngay jënd per yëpp composé ko rek nas. composé nasee yii lañ koy nasal. waaw waaw. waaw kay waaw gis ngeen maman ma def. waaw waaw gis na. may naa may waaw naa la benn savon. wàllu préparé la. jeexal. <laughs> ngi noonu may naa la benn savon. waaw may may ma benn may naa la tamit. maman euh, Fatou nag. gooy bu mokk bi laa la may. déggoo loolu. <laughs> may naa la goy bu mokk sama caméraman nee na ma nee na nii waaw jàllo jéeri ah. <laughs> léegi jàllo jéeri moom waaw dina xam ne lépp dëgg la dina xam ne lépp dëgg la ba ni sa rax sa biir kër ga mm-hmm. ba cokoro bool la yeeg ala pipi naanaa yi jolli macha allah bal yi commencé dóorante di fenqante fer yi commencé na eh, nii eh. dina xam ne lépp dëgg la waaw barke waaw <laughs> waaw <laughs> maman Fatou jërëjëf jërëjëf kontaan nañu téléspectateur u Leral TV kontaan ngeen gis ngeen teranga yi ñu jëlee ci kër Mama Fat Lawbe mm-hmm. lii lépp maa ko fi andi waaw euh, lii lépp lii lépp lii lépp mm-hmm. ñoo ngi lay ñaanal gudd fan nga yàgg lool ci kanamu xale yi ndax yaa ngi defar sëy yi yaa ngi defar dëkk gi yaa ngi defar lu ne euh, Mama Fatou gënal gënal gënal foncé dina baax incha allah gënal foncé ñun ci kaw ci kanam rek di wax képp ku ma bëgg rek mm-hmm. bu jullee rek na ma ñaanal ñu ngi lay ñaanal nag ñëpp def naa leen ci sama xol. Mhm. waaw ku ma xam ak ku ma xamut. Mhm. mais yàlla mooy borom jàmm yal na yàlla defal Sénégal yëpp jàmm. Mhm. góor jigéen mag ak ndaw fu ay mën a nekk. yal nañu yàlla defal jàmm te mbas mi fi dugg yàlla bu mu fi duggati. amiin ci barke Seydouna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam maa ngi tàggoo. tàggoo bu dul tàggoo bu beneen yoon bientôt du yàgg. déedéet bientôt ñun saa yi ñu amee lu ñu jaaxal rek dañuy delluwaat ba fii. kër gaa ngi nii kër gaa ngi nii. waaw. jërëjëf kontaan nañu téléspectateur u Leral TV dañuy tàgguwaat rek euh, tey dañoo ñëwoon ci këru mama Fat Lawbe macha allah mama Fat Lawbe euh, niñ ko fekkee rek jongoma niñ ko fekkee rek woon fa woon rek euh, na mu meloon démb ak barke démb rek noonu la mel noonu la mel ci mbaaxam noonu la mel ci ay wëyam noonu la mel ci askan ji mu dëkkal kontaan nañ ci yow. merci beaucoup ciao ciao. à la prochaine Leral TV leeral sa jonge <laughs>